korgo bi laa kenn gënuñ ko ñëw njaxum ndax da xam ne ab sereet am na koo xam ne ab sereet dafa indi bu yàgg donc ko indee ba ko wàccee bañ ko wàccee bañ ko jàppoo la tisli yar bi sang jër waaj yar bi sang di ñu xam ne du ko ci sereet bi ñibbi léeg-léeg nga dégg ñu naan kii dañ koo dañ fi dañoo dagg baaraam baak dañoo dagg ci yeeg dañoo def laa waaye lu ci li ci ëpp gëm table bi eh, table bi kii bi muy nekk plateau bi muy nekk plateau bañ la cat yi dafa ñaw léegi su fekkee yënguwaat na rek day day dagg day gaañ. bu daa daa ñëw te déggul. te ñu fa ñëw te seddut. bu yënguwaatee yëngu yenn yëngu yu métti te léeg-léeg sax da ngay li lay na wala mel noonu nam nekkee woon da ngay gis ne. soppiku na euh, tàlleetut lemu na wala def na dara wala nangam bu ko defee nga xam ne eh, eh, eh. kooku dafa yënguwaat su ko defee nag loolu buñu dikkee dañ naan waa bañ ko fekk yooyu yëpp la ca nit ñi ab nit dama xatal bu laaj kayit yu wane ne faatu na. waaye waaye waaye si ñaafe ma maa ngi leen di wax ngeen ñaani ngeen ñaan ci wàllu kër docteur ñu wutal leen médecin boo xam day féete fii nga xam ne tey néew bu ñu andeeti moom da koy consulter bu mu wóor ko ne faatu ñu door ko dugal ci euh, fu sedd fi loolu faratal da siñ bi bu ngeen ko demaanee ñu jox leen ko. waaw am nañu sax ay technique yoo xam ne di euh, yu ñu jàngal la yoo xam ne mhm. ña fay nekk dañ koy seet moo tax moo tax ñu bari mhm. léeg-léeg ñu andi leen fi ñu delloo leen mhm. ndax dañuy ñëw fekk euh, faatuwuñ ah, léeg-léeg loolu am day am sax lu bari am na ñoo xam ne dundaan nañ fi ab diir yàgg door a jumaa ji lépp ji xam ne mooy